jeneen kilifa joo xam ne ñëwaat na visité jumaa ju yees ji nga xam ne moom la sëriñ Mountakha Mbacké Bassirou taxawal fii ci diwaanu Porokhane moo di sëriñ Issakha Mbacké moom sëriñ Bassirou mu nekk kenn ci ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénkoon liggéey bi ñu ko doon saytu ba mu agsi fii lépp yemb ñu fas yéene koo ubbi moom sëriñ Issakha Mbacké moom sëriñ Bassirou bi mu ñëwee ànd naag sëriñ Moursaïn ak yeneen techniciens yi nga xam ne ñoo yoroon li jëm ci liggéeyub jumaa ji lenn lu ci nekk sëriñ bi saytu ko xool ko xool fu ñu ci tollu laata ñuy àgg ci àjjuma ci bés bi nga xam ne ci la sëriñ bi war a ubbi jumaa ji ba أداء لي وما لو لخير نهري بقصد منك يا الله رضاك يا رافع الدار مرتبته بلا انقبال بفضل منك يا الله رضاك visit بلا boobu it noonee la ko amalee ci biti jumaa ji mbooleem bayal bi nga xam ne moo wër jumaa ji muy esplanade bi fenn fu ci nekk Serigne Isaax Mbacke jaar fa ñu leeral ko la nga xam ne moo fa nekk mu am ci mbégte lool ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne techniciens yi amal nañ ko ci jumaa ji ba liggéey ko liggéey bu mucc ayib waaye santaat ci taxawaayu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacke Bachir liggéey bu am solo bi nga xam ne muy ndamal lislaam gi yépp باقي بكون يا سعد فوزي بما قاب من بسراك يا الله ألاك يا أدل داعي بخير قاد ولا لله ولي قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت تلي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير الذي آية خمرته وخدت لي منك ما الغيب يا الله أنت العليم الذي صحصحت جملة ما لن ترلأم بي لخير دهر يا الله أذا يسيب لاسي بعل دزامته لخوت فلن أسي من منك يا الله أذا الحرار لاسي لقد مغفرة مات يوم برادي بعدت عنك يا الله